MCAP muy mouvement bi ñu jiitee chaque at muy def conférence bu mel nii di woo ay nitu yàlla imaamu yëmbal yi chef de quartier yi képp ku baax ñu dajale leen ñuy waxtaan di delloo nit ñi ci yàlla buñ ci jógee MCAP am na ay suukar koor yu muy joxe ren ji mooy quatrième édition yi mu koy jox jaamu yàlla yi fi nekk les familles yi nga xam ñoo fi nekk. emu thème conférence ren bi yomal xiyam la c'est-à-dire li nga xamante ni mi ngi xaar jullit bi su génnee àddina bu demee àllaaxira donc yomal xiyam la ñuy waxtaanee oustaz Ibrahima Thiam Raïs di def waxtaan bi di wax nag ni état du Sénégal dafa war a jàppale waa Yëmbal. état du Sénégal dafa wara a wañ euh, maanaam gestu banlieue bi Sénégal amna pétrole amna gaz mais ba ni ni ni ñuy wax amul benn école bo xamante ne former jeunes ci pétrole ak gaz buñu samp ci banlieue bi donc ñun dañuy ñaan état du Sénégal de manière solennelle yëmbël Pikine Guédiawaye grenier la grenier de jeunes amna ay jeunes yu dul jeex yu fi nek soxla tay ji ay formation

désenclavement wu désenclavement wu yembal ñu ngi koy demander aussi jeune yi fi nek bëgg liggéey bëgg daan seen doole état du Sénégal dafa leen des formations yu baax jigéen yi for euh, euh, financement yi ñuy wax ñun dañ koy dégg rek les femmes de yembal soxla nañ tay financement na état du Sénégal ñëw genn ci budget bi financer leen ñu mëna liggéey def seen liggéey ni mu waré waaw dialog bi lu baax la dialog bi lu baax la ndax euh, ay nit mom tank que ñu ngi waxtan tank communication mi ngi am réro du am mais une fois que dialog bi ñu qu'il y ait ce qu'on appelle la rupture du dialogue rek problème day mën a day mën a day am donc ñu ngi ñu ngi ñaax état bi mu nekk benn dialogue bu sincère parce que aussi bu dee da ngay dialoguer te yow yow yaay fixer les conditions du dialogue loolu dialogue mënu fa am léegi nag ñëpp toog sénégalais yëpp toog ku nekk wax sa xalaat si dialogue bi ni nga ko bëggee bu boobaa aussi autorité yi fi nekk maanaam président du Sénégal moom la fi yàlla teg mu nangu ñooñu li condition yi ñu ko tek ni ñu ko tégal mom mu nangu ko c'est pas parce qu'il est le président qu'il est le mom moy bour du bour nous ne sommes pas dans une monarchie ñun démocratie lañ wax té démocratie waxtan la démocratie manam joko échange de parole la ñuy wax tamit opposition bi nañ dem wuyu ji parce que xeyna buñ ko wuyu jee dinañ mën a fixer conditions inna nahnu wa ma qaddamu wa atharahum